may peex moo taxawal ci télé bi mu ne moom ni mu seq ak Abdoulaye Wade fi mu jaar ak Abdoulaye Wade mbay peex kenn munu munu moom nee na képp ku bu bàyyoon Abdoulaye Wade dem ci dem dem ci beneen président sax président boobu moom ci boppam moom daf ko war a moytu nee na man président bu ma de bu ma bàyyi Abdoulaye Wade ak fi ma jaar ak moom dem ci beneen président président boobu bu ma moytuwul kooku mooy président boobu du nit Mbaye Pekh tay jii nii mi ngek Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall de est deug deug li Mbaye Pekh waxol neena mom neena mom bu bu bàyyee bu baye ak limu sekh ak Ablaye Wade bu baye bu baye Ablaye Wade même Ablaye Wade nekatul ci nguur gi nan day dem fenen ci benen président xam nga yow la neena bu demee ci yow rek wax deug yalla boko nango boko accepter c'est parce que yow Macky Sall do nit parce que fimu jaar ak mom la kon mom ça veut dire que du gore may peex moo waxoon loolu. ak sa ak say diw yu baax. ak yow ak marakis yi nag gis ngeen marakis mbay peex. <laughs> man dama demandé Aliou Sow démb ba ne la tëdd. bay jàmm waay yow tamit waa léegi. <laughs> non euh, may peex nee na dootul wax ci loolu. may <laughs> peex boo jàkkaarloo ak Macky Sall loo koy wax non Ablaye Wade ah moom passé na waaye. sànni ngaari lam tooro buuru jëde. Sane doo bëgg